أجمعين نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي أدو نبي نيني سيطان في انترنت بي نيني سيطان في تلفزيون بي نيني لين نيو نمو تد دي لين زيارة دي جيتل تي نيو خليفة جنرال ينغا خملي نيو يور جيلي ci mbay sëñ sëñ mbay si Mansour sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa Cenaba ñaseen ñépp ndax ñoom ñooy orienté nit ñi ci yoonu islaam seen émission tey nag xam sa diine da leen a faseel indil wàllu miiras ñu war a dugg ci mawaanixil irsi ñi nga xam ni sharia nee na kenn mënul fexe ba ñu donn ku leen jox da nga koo teg ci coobare waaye sharia dàkk na leen buñ ko doon indi tey dañ koy tënk ci kalima xislaka rizq muy juróom benn yoo xam ni sharia nee na ñoom du ñu donn ci héritage bi ci njëkk mooy adamul istixlaal mooy ayni bi ki juddu te indaalewul bakkan moom du donn ñaareel bi achakku fi saabiq min al ñaar ñi ànd di tukki faatoondoo ci benn avion walla ñu faatoondoo ci ndox ñoom ñaar ñoo deewandoo sur le sang kenn xamul ku njëkk faatu sa moroom kenn du donnu sa moroom si ñoom ñaar laam gi nekk alliraan jëkkër bi rëbb soxnaam ni ko taxawaalu kat nga ëmb bi nga ëmb ci taxawaalu nga ko jële du ci man sharia nee na nañu tas sëy bi alxuraan détaillé na ko alxuraan détaillé na ko nañu tas sëy bi ba pare jël doom ji yéegal ko ci yaayam mais duñ ko yéegal ci baayam day donn min jihati ummihi waaye nag laa min jihati abihi ci côté yaayam lay donne mais du donne ci côté baayam kaaf gi nekk alkaafir jullit ak chrétien kenn du donn sa moroom ñoom ñaar raa gi nekk ar riq zee gi nekk wala du zina mooy doom ju judduwul ci bu mu sëy xaaf gi nekk alqaatil amdan ki rey baayam te tey ko wala mu ray rakkam wala mu rey yaayam sharia nee na ñii kenn du ci donn ci wàllu héritage kenn du ci donn

bi ci njëkk ñu wax ko léegi mooy adamul istixla ki juddu te jooyul masala ñu indi ci benn exemple jëkkër dafa faatu bàyyi soxna bàyyi zawja bàyyi bint bàyyi ibn halik al masala nañ lañ koy séddale dañuy jox soxna si un huitième ci alal ji ndax xaj bu nuqsaan dafay am mooy doom ji moo tax mu jóge ci un quart dellu ci un huitième doom bu jigéen bi taxaw xaar ci fard la war a donn nag mais day xaar ibn mii nga xam ne moom indaalewul bakkan dafa juddu mais indaalewul bakkan du donn ci alal ji kon moom mahrumun minal maal ñu xañ ko alal ji kon boo xoolee al aslul masale day nekk huit nga jël huit diviser ko par huit mu jox la un nga jox ko zawja sept yi ci des yëpp nga jox ko bint fardan waraddan fardan waraddan li ci des yëpp moo ko moom kon nga ngi non benen bi ashak fi sabiq min al maut ñaar ñi nga xamni ni andu tukki fatondo masalan zawju zawja ak zawj jëkkër ak jabar ño and di tukki di fatondo ci ben accident te ken xamul ken mo njëkk fatu faatu sa morom si ñom ñaar ñom ñaar ñepp ken du ci donu sa morom seen alal dañ koy jël xool seen doom yi wala seen freer yi ñu jox leen ko ñu dond ko kon ñaara ngi noonu ñetteel bi mooy allixaan ki nga xam ni wax naa ko léegi nga am soxna amoo confiance ci moom wóolu ko nit boo demee ba wóolootoo ki ngay àndal wàcc ko wuti keneen ki nga xam ni moom nga wóolu nga ni ko nag day taxawaalu dàq ko alxuraan wax na ko nee na ñi nga xam ni wallazina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhada fa shahad illa anfusahum fa shahadat ahadihim arbau shahadat billah innahu la min alsaalihin yàlla subhaanahu wa taala nee na ñi nga xam ni dañoo jam seeni soxna ni leen dañuy taxawaalu teewuñu seen bopp pour ñu tas sëy bi balañ koo tas nañu woo xaadi bi jëkkëram taxaw waat ñeenti waat ni billaahi li mu def dëgg la wat ko ba muy ñeenti yoon juróomeel bi mu ni lii may wax bu fekkee du dëgg yàlla na merum yàlla walla rëbbum yàlla dal sama kaw kazalika ñu woo soxna si wat loo ko ñeenti yoon moom it mu waat ñeenti yoon juróomeel bi ni bu fekkee kii li muy wax dëgg la yàlla na rëbbum yàlla dal ci kawam xaadi bi tas sëy bi moom lañuy ñuy tuddee allixaan ismun li shahadaat ismun li shahadaati mu akkada bil aymaani مقرونة باللعن والعدب قائمة في حق الزوج مقام حد الحذف وفي حق الزوجة مقام حد الزنا فإذا تلاعن الزوجان بالصفة المبينة في القرآن الكريم وجب التفريق بينهما وجب التفريق بينهما نكو قادي بي تاس واي نك وبنفي نسب الولد من امي وبنفي نسب الولد لابيه وبالقاقه بامه مانام نيان نيغا خامني دانيو تاس سين سي خادي بي كو تاس اتكات بي ندخلن وولنتي اماتول سين ديغنتي شريعه نينا بو ني واتي با باري نقادي بي تاس سي بي buñ ko tasee ba pare jël doom ji yéegal ko ci côté yaayam waaye dàq ko ci côté baayam ndax baayam reconnaître wul ëmb bi ñu tas sëy bi def ko nag talqa ba na mooy sëy boo xam ni fase moo xam ni sëy dootu fa am mukk loolu la sharia wax kon ñu indi masala boobu maata ولد الملاعنة عن أب وأم وأخ شخيخ وأخ لأم لي لا باي كيفا ميم دوم ديغا خامني بايام مو رب ندايام نيكو جوروكو moo génn àdduna bàyyi baayam boobu bàyyi yaayam bàyyi frère am bu mu bokkal ndey ak baay bàyyi frère bu mu bokkal ndey kon masala maa ngi nii ab ummu ax shaqiq ak ax li ummi famille baa ngi nii المسألة لكن بابا نيو تاو اسك دي دونو تي اريتاج بي ولا دو دونو غاني دون كو جوخ دارا محروم من المال دنج كوي خاج علال لا شيء لانتفاء هم لانتفاء النسب باللغة شريعة نينا دنج كوي داق دون كو جوخ دارا parce que reconnaîtreul woon ëmb bi mu daal di des yaay ak frère bi mu bokkal ndey ak baay ak frère bi mu bokkal ndey ñu daal di jox yaay un ci alal ji ak shaqiix bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak axuli ummin ñu considéré leen ñoom ñaar ñépp comme doomi ndey waa kii nga xam ni ndey ak baay la bokk ak moom lu tax ñu koy jël ni dafa bokk ak kii mu bokk ak ndey ñu considéré leen ñoom ñaar séddale leen un tiers bi muy sulus bi miraas a sew parce que baayam daf ko dàqoon moom moo tax léegi nag looloo tax axul li ummin mii nga xam ni doomu ndeyam la dañ koy yël boole kook axu shaxiix ñu nekk ay doomu ndey ñu jox leen sulus un moom la yàlla naan wayn ak aksara min zalika fahum shuraka fi sulus ndax moom dafay ñëw donn min jihatil ummi ci côté yaay kon ñoom ñaar sulus lañ leen di jox un ginnaaw bi nga tegee sa masala xañ nga xañ nga xam xañ nga bàyyi ni ko moom du donn kon donc tey boo xoolee aslu masala bi day nekk 6 nga jël 6 sulusu 6 ñaata la un baa ngi nii muy 2 sulusu six deux la hmm? masala mi daal di des quatre dàq nga ab donnul nga jox yaay un sixième nga jox yaay un sixième nga jël six divisé par six mu jox la un nga jox ko yaay mu daal di des cinq nga war leen koo séddale ñoom ñaar waaye li ci doy mooy xaal dafa ñëw moom it taxaw ndijaay ñëw bokk ci position miraas bi xaal dafa ñëw taxaw bokk ci position miraas bi léegi nag génne nga cëru yaay ba pare muy un léegi su six boo xoolee deux la ku ci nekk jël benn mu daal di des trois am na boroom xam-xam yoo xam ni nee na da jox li trois yi ci des xaal di jaay waaye day donn ci côté zur rahma tawrisi zawil arham waaye gis nga nag bii am nañu ko weddi imam malik daf ko dàq imam malik nee na masalam nii la ab أم أخ شقيق أخ لأمي خال parce que boroom xam-xam yi toujours wuute dafay am imaam Malik nee na moom abbu moom moom duñ ko jox dara mahrumun minal maal ndax dafa bañoon ëmb bi yaay ñu jox ko un sixième ñoom ñaar doomu ji mu bokkal ndey ki nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay mu jox ko un tiers sulus xaal ñu ni ko yow daanu nga ñu ni imam Malik lu tax ndijaay du doon mu ni ndijaay dafa nekkee ci côté rahma te balaa ñoo jël tawris zawul arxam di ko ci dugal ñu xool ñi nga xam ne ñooy doon ci fard ba pare jox leen imam Malik moom daf koo dàq wala shay a lil ah wala shay a lil xaal li annahu zur rahma moo tax xaal daal di daanu kon gis nga kii moom sédd na ko trois yi ci des waaye ci mazhab imam Malik moom nanguwu ko parce que day dugg ci cadre tawrisu zawil arham moo tax boo xoolee foofu sa masala soo amee six papa daanu na nga jël six divisé par six mu jox la un sulusu six ci trois ñaata la deux mu daal di des ñaata trois nga ni xaal de duñ ko ko jox ñu jëlaat alal ji radd ko baabul radd dafa am ci miraas nu ñuy raddee alal ji dañuy jëlaat 2 plus 1 bii xool majmuhu sihamul furud yi mu nekk 3 ñu teg ko aslul murad jëlaat benn bi jox ko yaay jëlaat 2 yi jox ko frère ku ne jël benn masala mi daal di jeex tàkk xaalis bi jeex lii la imam Malik nangu waaye nanguwul ne xaal mii dina donn kon wax nañ leen ñi nga xam ni buñu ñu rëbbantee conséquences mo moo leen di fekk ci walum héritage buñu ñu aduna wara war a alal kon nañ ko moytu ñu ñëwaat ci beneen masala kafir yéefar ñu ñëw ci yéefar wax nañ ni al lixaan wax nañu al waladul mulaaxana ñi nga xam ni ñoom ñaar dañoo rëbbante seen doom génn àdduna wax nañu doom ji nga xam ni dafa ñëw innaalewul bakkan wax nañ jëkkër ak jabar yi nga xam ni ñoo faatondoo ci benn accident donc wax loolu lépp wax nañ ko kon dañuy ñëw ci alkaafir mooy ki nga xam ni yéefar la yéefar moom it du donn par exemple ki faatu bàyyi ibn ki faatu bàyyi zawj ibn bint jab jabar jabar ji jullit la amaana waaye moo génn àdduna bàyyi ñii wala mu nekk chrétien génn àdduna bàyyi jëkkër bàyyi doom bu góor bàyyi doom bu jigéen ñoom ñetti ñépp kenn du ci donn parce que bokkuñu diine laa yarisu al muslim al kaafir wala al kaafir al muslim jullit du donn chrétien chrétien du donn jullit kon boobu moom lu ñépp d'accord la mi ngi noonu ñu ñëwaat ba tey ci arriq jaam maanaam ki nga xam ni dafa génn àdduna bàyyi ibnu doom boo xam ni jaam la ak ax shaqiix doomam bii jaam la da koo jënd frère bii mu bokkal ndey ak baay nag ñoo bokk geñe ñoom ñaar

bint aku shaqiq walla du zina ñii ñoo fi nekk papa dafa génn àdduna wala jëkkër dafa génn àdduna bàyyi soxnaam bàyyi doomam bu jigéen bàyyi frère bu mu bokkal ndey ak baay jur doom joo xam ni juddoowul ci buum moo tax téye sa bopp baax na de téye sa bopp baax na trop waaye fu mu xasanee rek nga ni naa ko fa woqe bul xam lu lay dal kon ñu jox zawja un huitième bint ñu jox ko nisif un demi wala du zina mu gënoon na yey donn ci doom ji waaye baayam moo ko tooñ moo tax mahrum ñu xañ ko ci alal ji lu tax ñu koy xañ parce que juddoowul ci yoon moo tax léegi alal ji day nekk ci diggante soxnaam ak doomam bu jigéen ak frère am masala mi nekk huit nga jël huit divisé par huit mu jox la nga jox ko jabar deux fois quatre huit nga jox ko bint mu des 3 nga jox ko albaqi lil akh ash-shaqiq taxsiban nag ñu xagn ko sa baay de mo la togn kon ñëw nañ ci wala du zina jëkkër dafa bàyyi fatu bàyyi zawja soxna ibnu dom bu góor ak bint dom bu jigen temps yi laa dégg benn histoire ci internet bi ki jël soxnaam ki jël jëkkëram taal te ko taal la def kooku du donn ci alal ji parce que moom moo rey jëkkëram waaye bu fekkee jëkkër tamit moo rey soxnaam du ko donn kon fii jëkkër moom moo bàyyi soxnaam waaye da koo rey ñu ni ko doo donn ci alal ji la shay'a min al mal li annahu qad istaajala min al irth dafa ci ndodoom ñu ne ko xañ ko ko kon alal ji day nekk ci diggante doom bu jigéen ak doom bu góor ak doom bu jigéen kon boo xoolee sa masala da nga koy def 3 2 yi nga jox ko doom bu góor benn bi nga jox ko doom bu jigéen albaqi taasiban li zakar mislu xazil unsayeni moom la alquran wax mi ngi noonu ñu indi indiwaat ci beneen exemple zawja bint ibnu qaatil aqu shaqiiq soxna moo fi nekk jëkkëra faatu bàyyi soxnaam bàyyi doomam bu jigéen bàyyi doom bu góor boo xam ni moo rey baay ji doom bu góor bi moom moo rey baay ci ak frère am bu mu bokkal ndey ak baay doom bii bu reyewul woon kii du fi taxaw ndax du donn al axu shaqiq yuxjab bil ab wa bil farqi al waaris al ibni wa ibnul ibni mais li tax ñu xañ ko ndonoom moom dafa rey baayam man istaajala shay qabla awaanihi wuqiba bi qirmaanihi moom la sayduna muhammad wax kon daanu na Nous jox soxna un huitième ndax doom bi fi nekk bu fi mu jël un quart ñu ko un demi kon sa masala day daal di nekk 8, nga jël 8 divisé par 8, mu jox la un 8 deux fois 4, 8. mu daal di jox des Nous nga jox ko axu nous kii ñu ko parce que du parce que dafa rayaate képp ku rey sa wala nga sa ko soo demee ci alxuraan yàlla tudd na ko fa nañu def attention bu baax te sax nit dafa amul droit di rey bakkan yàlla nee na ku rey bakkan te tey ko safara nga jëm moo xam da ko rey nëbb moo xam dafa feeñ sëñ Babacar si benn taalibeem dafa mus ñëw ci moom ni ko dama bëgg nga reyal ma sama wujj bi sëriñ bi tontu ko waaye ci alxuraan la ko tontu ni ko man qatala nafsan bi xayri nafs aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala annaas jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaas jamian képp ku rey bakkanta tey ko mel na mel nga ni rey nga àdduna ak li ci biir képp ku dundal benn bakkan mel nga ni dundal nga àdduna ak li ci biir yonent bi confirmé ko ci xadis لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق yàlla nee na ma tukkal planète terre moo ma gënal nga sacrifier benn bakkan rey rey ko te tegu ko ci dëgg jamono ji nag rey ji bëri na trop élection nag bu ñëwee kenn dootul am jàmm mbon gi fi nekk ci Sénégal kenn xamul nu mu toll mbon gi ci internet bi mbon gi ci réseaux sociaux yi mbon gi ci pénc mi kenn xamul nu mu toll fii ak changé wuñu nag yàlla suñu boroom dañuy punir punition bii bu ndaw bii balaa ñoo dem àllaaxira zahara al fasad fi barri wal bahr bima kasabat aydi annaas liyuziqahum ba'da allazi amilu laallahum yarjiun yàlla nee na changé woon seen seen i qualité physique ak seen i qualité morale ànd nekk benn bëggante ma tee di leen punir rek ndax yàq ngeen géej gi ngeen suuf si kon bokk jullit yi lii lañ leen indiloon tey seen xam sa diine seen wàllu miraas ñu doon waxtaanee mawaaniril irsi ñi nga xam ni sharia dàkk na leen ñu tënk ko ci ishlaka rizq ñu jox leen benn bu ci nekk masalaam bu dajee nuñ koy séddale sharia lii la wax matière bii nag Seyduna Muhammad nee na woon bokk na ci matière yi njëkk yëkkati sama xeet bokk na ci matière yi gën a jafe sama xeet bu ko defee lu ci jub rek ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala lu ci dëng rek ñu xam ne suñu suñu ndëngte la ndax nit matul bu ko defee ñu ngi sant bu baax a baax ñépp di leen gërëm ñu ngi delluwaat di nuyu kilifa kër gi Pape Doumbouya yàlla na kawee ni asamaan barke leen suuf maa ngi nuyu sama kilifa Cheikh Ahmed Tijani mbay nuyu waa kër Alaaji Njaase Mbaye yépp Pape Moudiye mbay Pape Mansour Mbaye ma ca grand standing ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Tiwaawan yi ñoom Doudou Kenn mbay Pape xalifa mbay ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sant bu baax a baax a baax leen ñaanal yàlla yàlla nañ fi yàgg ñoom ñëpp bu ko defee nag ñu ngi nuyu technicien bi ñu àndaloon Ramatulaay ak équipe yëpp ndax bu dul woon aussi tamit émission bi du jag di leen sant bu baax a baax di leen gërëm.